الماء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 seydina muhammadin il makin wala alihi wa sahbihi ajmain bokki M Media groupe Nourou Darayni ñu ngi sant yàlla subhanahu wa di julli ci yonente bobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen dokkeel di bal xaq di ñaan ngeen bal am ngeen bal ñu xaq di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu suñuy ñu jaamu yàlla ñuy ziyaare mbokk yëpp nag di leen ndokkeel di jël ziyaar boobu ak nuyoo rek di ko teg ci loxol kilifa gi muy a Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñu koy ziyaar bu baax a baax di ko ndokkeel bu baax a baax di ñaan yàlla yàggal ko ci suñu kanam bu baax a baax ba jàpp ko jàppale ba lim bëgg a liggéeyal maamam lépp rek mu mën ko ko liggéeyal te nu ànd ko moom di ñaan mu jot li ñu liggéey nuyoo boobu ak ziar boobu mboolem mbokk yi nga xam ne yi ñoom lañu bokkal liggéey bu sell bi rek xam naa di dellu di ndokkeel mbokk yi bu baax a baax rawatina boroom xam-xam yi nga xam ne yàlla danoo boole ñoom ci biir liggéey bi dañu ñu yittewoo liggéey bi lool wax dëgg yàlla mu yitteel leen lool ñu def ci seen yitte def ci seen ab yëg-yëg def ci seen ak bëgg-bëgg di ci feeñal seen yéene saa nekk rawatina suñu fatwa bi jàll muy masala suñ mut juuf bu am solo boobu mu ñu dafa doxan te wax dëgg yàlla mbokk yi ñoom ñëpp ku nekk participer participer ci jàpp ci maanaam def ci sa gëstu wala ci sa yéene wax dëgg yàlla def ci ay leeral yu ama am solo yoo xam ne yu kowe kowe su njot la yoo xam ne yi dañ caa dolleeku bu baax a baax dolle cee sant yàlla bu baax a baax ñoo ngi leen ci sant yéen ñëpp di leen ci ndokkeel di ñaan yàlla yàlla yàlla gën a dëgëral xam-xam yi gën ko yokk bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañu xam ne loolu rek moo am solo ndax xam-xam moom dafa yaatu yaatuwaay boo xam ne bii euh, benn bum benn tomb bu ci mën a doon rek ku ci nekk maanaam mën nga ca indi loo xam ne lii maanaam ñun ñëpp dañuy bokk jariñu war ca njariñ loo xam ne lii lu lu kowe kowe lay doon kon kontaan nañu doole nañoo sant yàlla euh, mi nga xam ne mi moonu boole euh, liggéey bu sell bii nuy liggéey di ko liggéey mu rasul te borom xam-xam yi yittewoo ko lool waaye tamit euh, yeneen bokki taalib yi ci des yi ci bokk yépp muy suñu kilifa yi ak ñi nga xam ne ñi dañuy diglu muy soxna yi ak suñu kilifa yi ci nekk yépp daal di joxe seeni xalaat ñoo ngi leen di siyaar di leen ndokkeel di ñaan yàlla yàlla dol noo jàppale bu baax a baax bi sayyidina bi jaahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon xam naa ñu jéem a tàbbi ci liggéey bi rek di jéggalu bu baax a baax nag waaye ñaan leen yàlla doole jàppale bu baax a baax ñu jéem tàbbi ci li xam ne li mooy fi rot ci ay laaj rek tey laaj bi ñu tàmbalee kon mooy laajab soxna ma Njaay Cuba mii nga xam na ca semaine bale wax dëgg yàlla ko fi rotaloon waaye fekk na booba xam nga fii moom réseau bi day xaw a jafe ji ñun lool bi ñu jote ci laaj bi xaw na xañ na xaw na yeex tey bi ñu koy mën jot ba xam dëgg-dëgg ab laaj la ak nu mu demee fekk na daanaka euh, réseau xaw fee jafe lool ba daanaka boole ñu koon ca tontu euh, yu jëkk yee waa ñu ngi koy jéggalu bu baax a baax a baax moom dafay laaj xukmu tarki salaati nisyaanan aw takaasulan soxna si dafay laaj ne euh, moom daal léeg-léeg wala boog lan mooy àtteeb koo xam ne kii daal léeg-léeg day nekk ci coono yi ba daanaka am na julli yoo xam ne du ko jullee wala boog mu am ay julli yoo xam ni da koy fàtte muy laaj nag ci ñaare mooy yi mu fàtte ak yi nga xam ni da koy bàyyi bañ koo def muy julli yooyu ngir ab coono wala ak taayal tax mu def ko daal nan la ko def da koy fay wala nan la cay taxawe dañ ko cay jëkka tontu dañ ko naan tarku salaati amdan aw takaasulan min akbaril kabair dañ ko naan daal soxna si julli moom maanaam ab jullit amul sañ-sañ maanaam di ko bàyyi ci bàyyi boo xam ne gi maanaam ak tayala tax mu bàyyi ko wala ab coonaa tax mu bàyyi ko walla moo ko tey bàyyi ko ndax ne ne loolu dafa bokk ci bàkkaar yi nga xam ne yii moo gën a màgg ne ne faman taraka salaata tahawunan wa kasalan kaana urdatan li maqtillahi wa uqubatihi al aajilati wal aajilati ndax ne képp koo xam ne kii da ngay bàyyi julli ngir maanaam doyadal julli wala ak taayale tax nga bàyyi julli wala ab coono tax nga bàyyi ko wala feebar boo xam ne bii du bu doy waar lool bu sori lool dane kooku na xam ne daal mi ngi xëcc ci boppam jëmale ko ci sànjab yàlla waaye itam mi ngi xëcc ci boppam jëmale ko ci mbugalam yàlla moo xam ne mii am na ci loo xam ne muy da koy daal dal fii ci àdduna waaye tamit na xam ne am na ay duma yoo xam ne yii maa ngi koy xaar ca fële bu ëllëgee yal nañ ci yàlla musal wa ismuhu azamu min xatli nafsi wa axsil amwaali wa zina wa sarixati wa shurbil xamri te dañ ne maanaam bàyyi julli ci anam googu mu yaa tey bàyyi ko wala dangaa sonn wala tayal rek moo tax julli woo ne ne def loolu muy bàyyi julli googu ci noonu moo gën a màgg rey bakkan li muy rëy lépp waaye tamit moo gën a màgg jël alal yi jàmbur ci lu dul yoon waaye tamit moo gën a màgg bakkaaram njaaloo waaye moo gën a màgg bakkaarab sàcc waaye moo gën a màgg bakkaarab naan sàngara kon daal bay julli daal ci tayef moom ab jullit waru def dañu war a góorgóorlu ba nu mën a demee rek bu julli jotee su mënee julli ci waxtu wu ñu julli suñu amee ngànt loo xam ne xañ na waxtu wa waxat na ñun ba xañ na am na nu fa demee noo xam ne jéem nañu jéem mënuñoo julli daal nañu góorgóorlu ba saa bu julli nga jàpp ne rek maanaam bu waxtu wa génnagul ñu julli ko waaye sama itam su rawee su waxtu wa jàllee ñu jéem koo fay waaye bàyyi julli moom maanaam duñ ko may jullit moom ci benn anam kon daal bàyyi julli ci tay ko noonu wala tay rek bàyyi ko mu jàll daal lii ma la ci wax mooy ab tënk la ci lenn la ci loo xam ne lii daal maanaam moom la ci boroom xam-xam yi wax te moom lañu ñu suñu diine wax ne nii lay demee ci képp koo xam ne kii danga bàyyi julli te ko te yonente bi sallallahu alayhi wasallam danoon julli mooy ponk bi nga xam ne bii moo gën a am solo ci ponki islaam yi képp koo xam ne kii yaa ngi saxoo di taxawal julli mm, yaa ngi mel ni koo xam ne kii ponk yi lislaam yëpp yaa ngi koy taxawal waaye tamit ne ne ku dul julli maanaam bàyyi julli wala mu di ko sàggane ne ne mi ngi mel ni danga màbb ponk yi lislaam yépp kon beneen ñaareelu tama bi ci koo xam ne kii nag dafa ñàkk julli ngir fàtte ko dañ ne wa man fatathu salaatu li nisyaanin fal yusalliha ida dakaraha la kafarata illa zalika nee na ki nga xam ne kii waxtu julli dafa jot mu fàtte ko ba waxtu wa jàll nee saa su ko fàttalikoo rek na maanaam na daal di dem julli ko ndax fàttek julli bañ ko julli soo ko fàttalee maanaam amul lenn maanaam lu ko mën a remplacer lu maanaam du julli googu koy fay da nga koy julli bàyyi julli ci fàtte mën nañ koo jéggal ndax dafa fàtte woon waaye saa bu ko fàttalikoo nag duñ ko may maanaam mu bàyyi ko mu jàll waaye da ko war a julli ak lu mu yàgg-yàgg rek su fàttale ko ne am na julli gum julli itam daal na ko daal di fay wa man faatatu salaatu walam yata'ammad fawtaha laa isma alayhi ne nag koo xam ne kii ak julli da ko raw te bi mu ko raw maanaam nurul ak taayafam maanaam da ko fàtte rek ne ne loolu moom amul benn bakkaar waaye nag fu ko fàttalee rek fu mu ko fàttalikoo rek maanaam nga daal di dem julli julli ko gee wala juusu tarku salaati li marabin ne ne gis nga feebar sax wërta tax nit ki di bàyyi julli ndax te julli moom dañ la ne maanaam bu fekkee ni danga koo man dangay war a julli taxaw maanaam taxaw di julli soo mënta taxaw nga toog di julli boo mënta eh, toog nga tëdd ak wet goo mën a tëdd rek ba julli maanaam bu feebar ba àggee foofee du tax maanaam nga war a bàyyi julli ndax ne nañ julli dafa agg ci sax nag boo demee ba daanaka cër yooyu mënatoo ko yëngal sax ngay liyaar sax ci say loxo wala ngay junj ci sew junjin woo ne wi daal day teg na yow mi maanaam yaa ngi ci julli gis nga moom lay wax ni ne wayu salli ala xasabi haadihi na julli ci maanaam bu feebaree maanaam nu ko feebar ba mu may rek mu mën naa jullee nana jullee xaaidan aw xaaiman aw bi janbihi aw mustalqiyan gis nga ko mooy na ne boo feebaree ba feebar ba dem ba mitti bu fekkee ni mën ngaa taxaw taxawal julli soo mënta taxaw nga toog soo mënta toog nga seet wet goo xam ne gi mën nga koo tëddee boo mënta tëddee genn wet nga jaaxaan wala nga defeenu ndax ne noonu lañu ko seyduna muhammad digale ñu di ko jële ci ku ñuy wax imran ibnu xuseyn yonente bi da ko noon salli xaaiman fa in lam yastati fa qaaidan fa in lam tastati fa eh, ala janbin fa in lam tastati fa mustalqiyan dafa amoon benn saxaabi yi bu ñuy wax imran ibnu xuseyn yonente bi di ko wax ne ko julli moom maanaam feebar wërta tax nit ki di ko bàyyi julli feebar wërta tax nit ki bàyyi ko yonente bi sallallahu alayhi ne ko boo feebaree bu fekkee ne mën nga taxaw na nga taxaw julli soo mënta taxaw nga toog julli soo mënta toog nga tëdd ci wet goo mën a tëddee soo mënta tëddeeg wet maanaam nga jaaxaan wala nga defee noonu na nit ki maanaam su feebaree sax ba daanaka ràññeetul dara ñi nga xam ne ñi ñoo nekk ak moom maanaam dañ ko war a orienté muy julli waxtu ya su jotee loolu lay wax ne fayan baxi li ahlil maridi an yu laaxibu hadal marido ne ne ñi nga xam ne ñi ku feebar dafa nekk ci ñoom koo xam ne kii danga yor ko feebar daal ne ne danga war a seetlu kooku nga xam ne kii dafa feebar fan la tollu toll wa yuwajjihuhu wa yuallimuhu su ko defee dañ ko war di jël di ko jubla xeb la waaye tamit bu waxtu julli jotee ñu xamal ko ne ko julli jot na euh, jéem koo toppatoo ba nu mën a jullee rek mu mën a jullee mooy xattaa yu salli xasaba xaalihi fil marad walaw kaanat malaabisuhu najisatan in tayassara xasalaha aw ib in tayassara xasuluha aw ibdaaluha bi xayriha falhamdulillah Eh, donte yére bi sax dafa nekk yére yoo xam ne yu am sobe la su fekkee ne mën nañoo fexe yére yàlla ab wala ñu changer ko yeneen yére yoo xam ne yii moom lay sol dane su boobaa baax na waaye nag wa illa salla ala xasabi xaalihi waaye nee na sax dem na bu donte ne yére dafa sobe te mënuñu koo dindi wala fam nekk sobe sax te mënuñu ko dindi moom nañu góorgóorlu fexe ba mu eh, julli daal su waxtu wa jotee kon daal julli moom Mm. lislaam du may jullit bi mukk maanaam mu bàyyi ko ci xaala bu mu mën a nekk feek nooy noo ruugaa ngeen ànd ak yaram bi muy dem ak a ñëw su boobaa nu mu mën a demee rek danga war a góorgóorlu bu waxtu wa jotee nga jëm ko joxe soo ko fàttee nag moom desu da ci defal bàkkaar ngir ne danga ko fàtte waaye nag boo ko fàttalikoo rek maanaam danga ko daal di war a fay ca jamono ja nga ko ak lu mu yàgg-yàgg nag yeneen laaj ji topp suñu mag sëriñ ndiir tuuba mosa ndiir moo ko fi ñu ngi koy seer bu baax baax a baax ci moom itam wax dëgg yàlla euh, liggéey bi ni ko fonkee ak ni ci jàppale diñu ci yee diñu ci gindi diñu ci jëf ay tegtal yu baax a baax waaye itam diñu ci feeñal ay xam ay xam-xam yu ama am solo te loolu ci mujj mooy euh, sunu jàmbar jooju mu Cheikhul Xadim bi mu dëppee ci tukki géej gi muy 11 novembre jooju yi euh, njàngale mu yaatu moom nga xam ne mi def na ko ci yàlla ko yàlla gën a dëgëral moom itam te euh, yàggal ko ci suñu kanam bu baax a baax a baax ba moom itam li mu bëgg a liggéeyal islam lépp yàlla jàpp ndalal ko ko bi jaay sayyidina Muhammad ñu ànd ko ak moom sëriñ Ndiir dafay laaj euh, salaatu zuhri badalan anil jumaati li taaxuril jumaati ne ne ndax maanaam lan moo di àtteeb maanaam wala boog mu ne ndax nit ki bu dekkee foo xam ne fii maanaam bu ñu war a jullee ajjuma ajjuma ji dañu koy yeexalool ba daanaka waxtu wa day jàll bay bëgg a duggante tàkkusaan jeex ne su boobaa yow da toog di xaar ba saabu bu ñu julli ajjuma rek nga ànd ci ak ñoom wala da ngay julli tisbaar rek maanaam remplacer ko jullig ajjuma googee su ko defee lañ koy jëkk wax dañ ko naan waxtu salaatil jumaati huwa waxtu salaati zuhri inda jamaahiri ahlil ilmi min as-salaf wal xalaat dañ ne uh, waxtu jullik ajjuma mooy waxtu julli tisbaar maanaam uh, waxtu yi nga xam ne bi ci lañuy julli tisbaar maanaam mooy waxtu julli e, ajjuma loolu moom ne na boroom xam-xam yépp d'accord nañ ci ne moom waxtu woowu ñoo ko bokkule ndax euh, booy xool ajjuma maanaam tisbaar bi la remplacé dana loolu ñoom ñépp d'accord nañ ci wal awla al mubadaratu bi adaiha fi awali waqtiha li umumi nusus ashariyati al xaafati ala tabkiri fi adai salaat dana nag li gën kon mooy moom ajjuma moomu su jotee rek maanaam ñu daal di dem jublu ci jublu ajjuma googee joxe ko ca jaal benn waxtoom ndaxte bu ñuy xool am na ay bind yu baree bari yoo xam ne dañ ko bind ci sharia mu ñuy soññ ci teel a dem ngir joxe ji jullit ajjuma googu ne ne wa haza huwa nabi sallallahu alayhi te ne it nii la ko yonent bi doon defee da daan teel a dem mu julli ajjuma jotee ca bés ba waaye itam daja daa soññe bu baax a baax a baax ne an anasin ana nabi sallallahu alayhi wa sallam kaana yusalli jumata xiina tamilu shams danañ jël nañ ci ku ñuy saxaabi yu anas anas mu ne yonente bi day moom daana julli ajjuma saa boo xamee ne bii rek maanaam jant bi xaajale na asamaan si ba resetiku maanaam ëpp ci ëpp ci wet saw gi xam nga nañ la loolu mooy zawal maanaam bu jant bi demee ba xaajale asamaan si maanaam su demee ba ëpp ci wetek saw gi rek maanaam ne nañ foofu la waxtu euh, tisbaar jàpp euh, waxtu tisbaar foofu la tàmbalee kon ne ne walakin iza wujidat alxaajatu awil maslahatu ila taxiriha fala ba'sa bi dhalika gis nga kon lii mooy tontu li nga xam ne lii mooy limu laaj ne nag euh, jéem Euh, ajjuma ci waxtu woowu la war a tàmbali moog tisbaar ñoo bokk waxtu tere wut ne maanaam bu ñu amee aaju joo xam ne ji aaju joo xam ne ji ju la wala loo xam ne lii luy jariñ nit la maanaam am ñoo xam ne ñii am nañu lu leen gàllankoor loo xam ne lii euh, seen intérêt la seen njariñ la euh, nekk ci ba mënuñu daan di julli julli ajjuma ga ca waxtu wa nga xam ne fa fala tàmbalee maanaam teele ko ne maanaam ñu yéex a julli ajjuma googu daal maanaam ne ne dara newu ca maanaam may nañu leen daal suñu nekk ci ay yitte wala nit ña la ca ëpp ñu ngi ci ay yitte yoo xam ne yi seen njariñ la loo xam ne lii maanaam duñ ko daal di mën a bàyyi daal daal di ñëw ci julli ajjuma ga ca njëlbéen waxtu ga ne ne mayees na maanaam euh, ñu xaar ba ñooñee nga xam ne ñu nga ci seen yitte yooyee nekk di mën a ñëw maanaam bokk si ci julli bi te kon gis nga yeexa googu mu wax day day daal di dëppoog lii ndax moom ni mu ko laaje mooy dane dafa am ay mbokk yoo xam ne dañuy lal ci marché bi te ñoom bala ñuy mën a julli si dañuy xaar ba lalli te jamono ji ñuy lalli day fekk waxtu euh, ajjuma bi maanaam day dem ba sori lool ba xaw a jege ñi ak waxtu takkusaan ne ne loolu maanaam lu ñu maya la comme noonu nga xam ne nii loolu moo leen gàllankoor ba tax mënuñoo ñëw dégg nga mu daal di ca ne kama law kaana naa su fi amaleen gis nga ne ne ngi mel ni rek bu fekkee ne nit ñi nga xam ne ñi dañoo war a julli si ajjuma dañoo nekk ci ay liggéey yoo xam ne da leen a tënk ci njaal bi ak waxtu wi ne su booba may nañ leen ñu yeexe jullik ak juma ga wala yastatiyoona zahaba li salaatul jumaati fii awal waxtiha fekk seen liggéey boobee da a tënk ba maanaam jaal benn waxtu waa juma wa maanaam duñ ca dem julli ji e, ci waxtu nga xam ne bii mooy waxtu wu jëkk wa waaye nag ala an yattimal faraax min as-salaati qabla duxuli waxtil asri kon lim laaj nag kon ba tey fii ne kon euh, koo xam ne kii nag da nga nekk foofu noonu nga xam ne waxtu woowu lu ñu julli ajjuma maanaam dañu koy yeexe ndax yow mën nga julli tisbaar rek changer ko ko wala danga leen di xaar rek dañ ko naan su boobaa may nañ la maanaam maanaam da war a xaar sax jullik ajjuma googu ndax bés boobu yow jullik ajjuma moo la ci war ta lii nga xam ne lii moo tax nga bëgg a julli tisbaar maanaam may nañu la maanaam nga toog xaar leen ba saa suñu julli maanaam nga mën a ànd ñoom julli julli àjjuma googee ndaxte euh, loolu mooy ne gis nga fii ne nañu góor góorlu ba euh, waxtu wi maanaam bu ñu koy julli euh, mën nañ ni la may maanaam ba balaa waxtu takkusaan way julli di dugg maanaam ñu mën a julli àjjuma gis nga kon li mu wax ne léeg-léeg dañuy dem ba maanaam waxtu ak juma wi jamono ji ñu koy julli day dem bay bëgg a dugganteeg waxtu takkusaan wa ne ne fekk waxtu takkusaan wa jotul daal maanaam may nañ leen maanaam ñu yéex a julli ko ba àgg foofee kon su boobaa yow dangay toog rek xaar leen bu ñu julli ajjuma nga maanaam nga daal di dem julli juma ak ñoom su ko defee itam Euh, boroom xam-xam yi dañoo dëppoo ci ne euh, mujjantal ak waxtu àjjuma daal mooy mujjantal ak waxtu tisbaar te nee loolu amuñu ca benn wuute te gis nga bi ngay jàng féq bi nee na maanaam waxtu tisbaar fi mu tàmbalee day dem ba dugg ci muxtaaram tàkkusaan su ko defee moom muxtaaram jeex mu dugg ci darurim ànd ko ak muxtaaram tàkkusaan te gis nga ne ne maanaam noonu ñuy ànd noonu dañuy dem ba maanaam jant bi sax kon dañoo bëgg jàpp dañoo bëgg wax ne rek waxtu julli ajjuma daal maanaam mën naa dem ba euh, julli euh, waxtu tàkkusaan bi jege ñu mën ko julli ndax lii ma la wax nii maanaam dama koy sukkandiku ci mm, maanaam waa Maliki li ñu wax nii danoon wa xaalal maalikiyatu chartu sihatul jumati wuquuha kulluha maal xutbati waxta zuhri ilal ma ilal xurub dégg nga ne ñi nga xam ne ñi dañuy topp ngenam imam malik dañ ne ah, li nga xam ne day wéral julli ajjuma daal mooy julli ajjuma nga na am dañu boole ca xutba ba waaye tamit euh, na tombeek mu doon waxtu tisbaar ba kere jant bi gis nga waa maalikiyee sax ñoom dañ ne maanaam waxtu woowu daal mën naa continuer ba far sax euh, so jant bi sax kon gis nga ne ne waxtu ajjuma yi kon jéem mooy remplacer tisbaar ja moom tamit kon day daal di mën a continuer ba kër nga xam ne bii jant bi day so wa ala mazhabil malikiyati yajuusu an tusallal jumaatu wa huwa awlu waxtil asri dëgg na dem bu ñu xoolaat ci mazhabul malikiyee dañ ne maanaam ajjuma mën nañ koo julli maanaam bu ñu demee ba euh, takk ndeer bu nekk maanaam yokk ba nga xam ne bii fala mën a yem ne ne loolu xam nga waxan nañ ne maanaam foofu la muxtaaram tisbaar ma yem kon daal euh, noonu ñuy def di yéex a julli googu daal maanaam loolu luñ leen may la lu ñu mën a def la su ko defee yow danga leen di xaar ba waxtu woowu ñu koy julli euh, nga ànd ak ñoom jullik ajjuma ga waaye itam na nga xam ne waxtu wu ajjuma daal maanaam ci bu fekkee li gën dëgër ci li ngërëm imam mali wax mooy maanaam foofu nga xam ne fii fii la muxtaaram tisbaar jeexee daal foofu la maanaam nañu fexe ba ba weesu foofu mooy gis nga fi nga xam ne fii fii la muxtaaram takkusaan tàmbalee ndax dala noonu waxtu takkusaan mi ngi tàmbalee ci boo xoolee takk ndeer mu dem ba fi mu mën a yem rek foofu la tisbaar ji yem takkusaan ji daal di tàmbalee foofu te moo ajjuma ji ñoo bokk waxtu beneen laaj bi day laaj xel yàq fii xuslu jumaat yi li salaatil jumaat eh, aw hal yanuubu xuslu jumaat yi wudu yi damay laaj ne waaw léegi ndax sangu gi nga xam ne gi sangu farat lay doon ci bu doon ne dañuy laab waaye dañ ko def ajjuma mu di sangu koo xam ne gi nit ki da koy def comme ni ñuy sangoo farata waaye fekk yorul sobe ndax ne ne sangu boobu mën na wuutum jàpp maanaam nga dem julli ji ci ajjuma foofu itam dañ ko naan xasulul jumaati laa yanuubu anil wudu'i waaw maanaam sangu boobu ñu sangu ajjuma maanaam mënta remplacer am maanaam mënta wuutu maanaam nit bu ko sangoo maanaam mënta dem rek daal di dem julli ji ajjuma te jàppaatut li am na xusulal jumaati laysa an hadasin ndax ne li tax eh, sang boobu maanaam mënta wuutu am njàpp mooy sangu boobu maanaam eh, doonu sangu boo xam ne gi sangu laab la maanaam doonut ne nit ki dafa am sobe am yéene tàggook sobe soosee boole ci ak yéene laab looloo tax maanaam eh, bu ko nit ki defee bu bëggee julli ji ajjuma faaw day jàppaat walay sa waajiban ne ne li nga sanguk ajjuma ne ne doonut loo xam ne di luy dindi sobe la ñu di ca yéenewaale ak laab waaye tamit nekkul loo xam ne lii lu war la maanaam dañ ko dafa nekk lu ñu sopp rek mu nekk sunna fala yu gisi u anil wudu boobu daal maanaam du tax rek nga yem ca bañ jàpp nag waman iktafa bi xuslil jumaati anil wudu yi suma sàllat jumaata fa alayhi nag képp ko xam ne da nga sangu-sang boobu yem ca bañ a jàpp dem julli ji àjjuma nee na su ci jullee ajjuma nee na julli ajjuma googu da koy baamuwaat te su koy baamu maanaam julli tisbaar la koy def kon daal laaj bi daal li muy laaj mooy liñ ko ci wax mooy sangu ajjuma googu bu dafa nekk sobe ñu yéene ca dindi sobe sax ak yéene wala ak laab daal nit ki ba pare day jàpp doog a dem julli ji ajjuma ndax ne ku yem ca sangu ba rek te jàppoo dem julli ji àjjuma dafa war a baamuwaat julli julli googee te bu koy baamu maanaam tisbaar la koy def beneen laajam bi tamit day laaj xukmu wuddu yi xabla salaat yi wa bi duni neeti salaatin muayyana day laajit lan mooy àtteeb ki nga xam ne kii dafay jàpp njëkk julli di jot te julli googu maanaam maanaam yéenew ci génn julli goo xam ne gi guñu ràññe la nga xam ne rek moom daal dafa toog rek ba ci yàgg si maanaam mu ne naa jàpp rek maanaam ngir ma nekk ak ak laab loolu itam lañ ko cay tontu mooy euh, laa ba'sa bi daalika ne loolu lu ñu may la nit ki mën koo def tayit na ne bu jàppee njàpp moomu rek maanaam nga xam ne ak laab la ci yéema yéene woon maanaam bëgg naa nekk ak ak bu ci yéenewut wenn waxtu itam maanaam du tere bu waxtu julli jotee te njàpp moomu to tojagut mën na caa julli ji nen ndax loolu fa in istamarat taharatu xata jaati salaatu fa lillahi alhamdu dane su fekkee ne jàpp nañ jàpp mu mel noonu fekk yenn wu ci yéene julli wenn waxtu su laab googu continuer ba waxtu julli jot ne ne may nañ ko maanaam mu julli ci jàpp njàpp moomu ndaxte ne ne fan nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi baadil ayaami salla iddata salawaatin bi wuduin waahidin ne ne yonente bi ci yenn bés yi am nay bés yoo xam ne daana boole ay julli yu baree bari yoo xam ne bu koy julli maanaam mel ni njàppam mel ni njàpp la koy jàppal te kon xam nga ne kon euh, fekkut ni ba muy jàpp da ko yéene waaye dafa jàpp noonu rek fekk bi mu jàppee euh, waxtu yu baree bari maanaam mu daal di koy mu bañ yeesalaan njàpp ma daal di boo julli waxtu yooyu ca euh, njàpp ma nga xam ne nii moom na jàppoon gis nga mu la jox misaal ne ne la ba'sa an yatawaddaa li duha wa yusalli bihi zuhra ne sax mañ na ne bu fekkee ne dangaa toog ne dama bëgg julli julli gi yoor yoor daal di yéene jàpp ngir julli yoor yoor nga yéene woon yoor yoor la la waaye terewut ne ne la soo yoree njàpp moomee ba julli tisbaar jot su boobaa may na la nga julli ca julli ga awi zuhra wa yusalli bihi asra wala boog nga amoon yéene jàppal tisbaar ba jàpp ko njàpp moomu continuer ba tàkkusaan jot njàpp ma dañul nee na may na dem nga julli ca julli tàkkusaan nga waaye nag nee na wa yustahabu nag liñ gën a soppi daal mooy euh, julli goo bëgg a julli maanaam nga yeesalaat sam njàpp su fekkee ne daa fekkan nga jàpp kon daal jàpp daal te yéene woo ca génn julli goo xam ne gi gu ñu ràññee la tere ne ne bu julli jotee fekk nga yor njàppoome ne ne mën nga caa julli ndax gis nga ne ne wax na la ko nii ci kii am yéene jàpp ngir euh, julli euh, yoor yoor may nañ ko mu julli ci tisbaar ki jàpp am yéene julli tisbaar itam may nañ ko mu julli ca takkusaan ak yeneen waxtu yee ci des yëpp donte yi tamit yéenewut ci gënn julli goo xam ne gi gu ñu ràññee la waaye dafa toog rek am mu nekk ci njàpp mu jàpp daal di yéene laab nee bu boobaa laab googu da koy may jëm jàpp la rek moom waxtu mu mën a doon rek mën na ko ca julli waaye jaamu yàlla goo xam ne gii dañu koy def ca di ko aj ca njàpp ma rek su boobaa loola dina ko mën a def beneen laaj bi ci des bi ci topp te moo ci des mooy laaj bi jóge ci Sëriñ Fallou Gueye ñoo ngi koy siyaar bu baax a baax di ko ndokkeel moom na xam naa laajam bi <clears throat> dafa xaw a desee leer lool ndax moom dafa wax rek ne waaw ñaar ñi nga xam ne ñii kii ab julit la ki ci des du ab julit ndax mën nañoo takkante maanaam loolu la laaj su ko defee nag loolu dafay xaw a desee leer daal ndax fi ne nii xamuñu góor gi doon ab jullit wala moo doonut ab jullit wala soxna si doon doonub jullit wala doonutab jullit waaye daal liñ ko ci wax mooy bu fekkee ni góor gi ab jullit la may nañ ko mu takk ci soxna yi nga xam ne yi maanaam ay boroom yi dañoo bokk ci ñi ñuy wax boroom téere maanaam ahlul kitaab ñi nga xam ne ñi dañoo wàcc ci ñoom ay téere maanaam ñu di leen wax ay nasaraan wala ay yahud ak yooyu maanaam ñoo ñoo xam ne ñu am nañu téere daal jullit bu góor mën naa takk ci seeni jigéen waaye bu fekkee ni jigéen gi nekk ab yéefar la dafa bokk ci yéefar yi nga xam ne ni moom amuñu téere maanaam nanguñu benn diine moom kooku moom dañuy bañ ab jullit takk ko waaye euh, bu fekkee ni góor gi tam moom doonutub jullit moo xam fu bokk ci ñooñu waaye doonutub jullit moom te ndaw soxna si ñu ko bëgg a doon doonub jullit maanaam lool moom lislaam mayu ko lislaam daal li may mooy jullit bu góor bi mën naa takk ci alkitaabiyaat maanaam ahlul kitaab ñi nga xam ne ñi ñoom la wax ahlul kitaab daal bu dee ni jullit bu góor la mën naa takk ci seeni jigéen waaye bu fekkee ni eh, waa ji ab yéefar la wala mu bokk ci ñooñu soxna si doon ab julit moom maanaam duñu lislaam du maanaam may du mayewut ñuy ñu leen di may ñoom ñaar ñuy sëy kon xam naa daal comme noonu moo ko laaje daal euh, bu mu ci doon bu fekkee ni jullit bi maanaam góor gi mooy jullit bi loolu lañ ko may bu fekkee ni euh, soxna si moo doon yéefar bi itam loolu lañ maanaam dañ koy tere euh, jullit bu góor bi mu takk ko kon ñoo ngi jéglu bu baax a baax ci laaj bi ni xaw a dikkee xam na bu fekkee ni ak leeral man na cee gën a amit moom ñu gën cee mën a defaat ak leeral rek aleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuhu